صلاة الله ثم السلام فطرها مجد عاشق فيك واميق نستقيم على رائه حق قدره ومقداره العظيم منذ 2011 mu ne seen relation ñoom ñaar depuis 2011 la mu ne laysa bi jadid mu ne nekkul lu bees lu yàgg la كل عام تدعوني ولكن يصادف يوم برمجت فيه أن أحضر مكان آخر mu ne chaque année da ko daan invité ne yàlla mu ngi dogal moom mu si soog a teew lu waral loolu nag mu nee na da doon am ay jotaay yoo xamante ne da si war a dem day fekk mu programme ba pare ci yeneen jotaay loolu moo tax da fi daan teewu لكن في العام قالت لي لابد أن تحضر مهما كنت وفي أي مكان لابد أن تأتي mu ne at bi nag Seyda Amija moo ko ne faw daal mu teew fi lépp lu mu mën a am wala lépp lu mu mën a jàpp na ko bàyyi ñëw teew si fii loolu moo tax mu ñëw teew si la Seyda مشيت مع الإمام الراتب بلدة mën mu ne mu ngi ànd ak imam ratib bu ñuy wax Balde moom moo toog nii ci wetu Cheikh Aboubacar Ba Tidiane. imam ratib li li al masjid al jami bi cité Apix. mu ne imam ratib imam bu mag bu nekk fële ci Apix ci ci juma bu gën a mag ci Apix jami Apix. wa naa'ibihi Thierno Harouna Sow. hada alladi bi janibi. ak ku topp ci moom Thierno. هارون صو ceerno haaruna sow mel ni moo toog ni an uhanni'u l-jamii' wa ubaariku lil-jamii' mu ne ñu ngi ndokkeel ñëpp te di barkeelal ñëpp di barkeelal ñëpp nasalu llaha an yahdiyanaa min barakaati haadihi l-laylati mu ne mu ngi ñaan yàlla nag yàlla mayu ci barkeeru guddi bii kullu man jaa'anaa lahu haaja allahu yaqdihaa képp ku fi ñëw te am soxla yàlla na ko yàlla fajal soxla bi ay insaan jaa bihi marad allahu yashfi wa yuaafi mu ne ak képp ku fi ñëw te am feebar yàlla na ko yàlla fajal saafaral feebar boobu noonu narjullah an yudima hada liqa marat wa marat fi awqatin ahsana min hada mu ne ñu ngi ñaan yàlla yàlla gën a saxal jotaay bi fii ak ci yeneen temps yu dul temps bi allah yataqabbal min al jamii mu ne yàlla yàlla nangul ñëpp xata la util mu ne ndax balaa muy guddal waddiuhum wa astasmiu ila marra oxra mu ne mu ngi tàggu mu ngi tàggatoo te di balu àq ba beneen yoon axru daawaana alhamdulilahi rabbil alamin mu ne mu ngi koy tëjee di sant yàlla alhamdulilahi rabbil alamin asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu ataahu Cheikh Tijani ma ataahu waaye Seydi Maodo Fall ginnaaw bi Cheikh Tidiane génnee àdduna moo njëkk a jóge Mauritanie dem ziyaara Faas. Euh, qaala Seydi Mourid Fall baadama fana Cheikhna Tidiane ila rabbihi أن سيدي مولد فال هو هو أول من زار الشيخ تيجاني بعد وفاته. Cheikh Tidiane wax leen ne am na sama gone guy ñëw bu ñëwee na ngeen ko jox sama satala. satala Cheikh na Ahmed Tidiane boobu mu ngi ittu Tumbuyaali. قال euh, أن ذاك المخرج في Tumbuyaali. ki tumb yaali laa wax mu ngi tumb yaali te itam maamam maamam Seydil Haadi yaqulu jaddukum Seydi Haadi moom itam moo bokk na ci ñi njëkk a ñëw ànd ak Maulana Cheikh Ibrahim Niass huwa min al awail alladina uh, jaau li Maulana alxaaj Ibrahim alxaaj Cheikh al Islam xaaj Ibrahim Niass radiallahu anhu te uh, dañu doon wax ne qat'ul xujja fi fi lfaydati mooy cheykhaani ak saydil haadi kaanu yaquluuna anna qatu lxujja fi lfayda huwa saydina cheykhaani wa saydina haadi ibn cheikh ibn sayid ngir ne ku eh, sëriñ si fi nekk ci Sénégal bañ a topp Baye لأن المشايخ الذين كانوا هناك في السنغال ولم ولم ولم يعني يمشوا مع الشيخ إبراهيم ولم يستسلموا يستسلموا الشيخ إبراهيم نيونو Euh, haulaai mashaayix ku ciy toog da nga naan sama maama doonoon nangam ak nangam kullu man jalasa minhum fi lmuhaadara sa yaqulu walidi huwa kada aw jaddi huwa kada waaye seen maam yooyu yëpp ay taalibey Seydi Mawlud Fall lañ ak taalibey Cheikh Mahamadul Xaafis ولكن هؤلاء والد والديهم واجدادهم هم تلامذه للسيد مولود فال وللشيخ محمد حافظ العلوي waaw léegi kon bu dee sëti Cheikh Mahamadul Xaafis ak sa di Seydi Mawlu ñëw nañ nekk taalibey Baay kon kay ñoom garab gi ñu téye woon reen ya dagg na hmm, yaqulu an eh, ahfad Seydi Mawlud Fall wa ahfad aw abna Seydi Mawlud Fall wa ahfad Cheikh Mohamed Hafid jaa'u Cheikh Ibrahim Niass wassalamu lahu يعني هؤلاء شجرتهم, شجرتهم قطعت انقطعت عروقها moo tax tey Tumbuyaali لذلك تنبيه على اليوم عليك عليك السيف أو نيكو tey Tumbuya Ali. yaqulu ana Tumbuya Ali اليوم. Serigne Thiénaba mooy seen silsila. Cheikh Thiénaba Cheikh Thiénaba Thiénaba Thiénaba Seck silsilatuhum Tumbuya Ali. Cheikh Omar Tumbuya Ali mooy seen silsila. wa Cheikh Omar kadalika silsilatu Tumbuya Ali. Seydi El Hadj Malick. wa Seydi El Hadj Malick kadalik. moo tabax qabru Seydi Mawlud Fall. yaquluna annahu bana qabru Seydi Seydi Mawlud Fall. ci tabaxu ban. bi tiin. ba tey bâtiment bi fondement baa nga fa. حتى الآن يقولون أن أساس موجود هناك. waaye boo demoon tey Tumbuyaali. يقولون إذا ذهبت إلى تومبيالي اليوم. penku ba sow ndeyjoor ba càmmoñ. شرقا وشمالا وجنوبا وغربا. ñëpp taalibe Baay lañ. كلهم تلامذة الشيخ إبراهيم نياس رضي الله عنه. kon loolu benn mbir bu rëy la. yaqul anna hada amrun azimun. ci ci ci ci dalil bu mag. wu dalilun. Euh, qaati qaati naam. ci mbiru Mawlana Cheikh Ibrahim. Euh, fi amri Mawlana Cheikh Ibrahim radiyallahu taala anhu. léegi nag euh, Sidi Maxtaar joxe na kàddoom moo tax Mawlana Cheikh Ibrahim bi mu koy tagg ne utilul madha aw uqsir waaye fa darkul wasfi la aqdir walaw wala michara ushril bar walaw afnaytu azmani loolu ñun ñëpp mokkal nañu ko bàyyi mu ne utiilul madxa naa guddal tagg wi aw aksir mbaa gàttal ko naa tagg Cheikh Tidiane tagg wu gudd wala ma tagg Cheikh Tidiane tagg wu gàtt waaye bu guddee bu gàttee yëpp fa darkul wasfi jot dëggi-dëggi melaw cheikh laa ak dir manuma ko way wi lum gudd gudd ak lum gàtt gàtt duma ma mën a wax Cheikhu Tidiane dëggi-dëggi Cheikhu Tidiane ci biir woy Cheikh Ibrahima ay wax de fa darkul wasfi laa aqdir jot melo wi duma ko man wala michara ushril bar mu ne sax fukkeelu melo buñ xaajoon melo fukki xaaj fukkeel booba ñu xaajaat ko fukki xaaj benn xaaj ba sax duma ko mën a wax ci ci kan mooy Cheikhu Tidiane kon xam nga ne Cheikh sori na walaw michara ushril bar mu ne walaw af naytu azmaani donte dama jeexal samay jamono donte sama jamono yépp dafa jeex ci matxu cheikh du tax ma am darkul wassi bay wax ko façon waxin bu ne melal ko façon melal bu ne tagg ko façon tàgg yu ne waaye melal yooyu ñu koy melal yépp ak tagg yi ñu koy tagg yépp mu ngi ferenkulaayu ca maqaama ba ko may loola ci guddik tey jii muy guddik yiw di guddik leer di guddik barke waaye di guddik dund ndax xayu mooy 18 te xayu mooy aji dund jidul dee li tunzira nag man kaana yan aw man kaana mayitan fa axyaynaa xayaat sax boo ko xoolee baatu xayaat moo lay jox 24 xayaatun mooy 24 xayaatu boobu mooy xarafu laa ilaha illa allah muhammadu rasulullah laa ilaha illa allah douze lettres la muhammadu rasulullah douze lettres la boo ko boolee muy 24 lettres 24 lettres yooyu adad bi mooy adadu xayaatun moo tax zikrullahi moo di xayaatul qulub tudd yàlla mooy dundal xol yonentu wax na ko ci xadis bu wér mu ngi ci saxiix muslim mu ne masalu lazi yazkuru wallazi laa yazkuru ka masalil xayi wal mayit misaalam kii sikar ak ki dul sikar mu ngi mel ni misaalam ku dund ak ku dee jubluwu ca jëmm ja waaye xol ba lay wax di kuy tudd yàlla xolam day dund ku du tudd yàlla xolam day dee waaye nag alxadiisu aarifuuna billaahi dañu ne alxadiisu an maqaami cheikhi yaqumu maqaama zikri waxtaane maqaama Mawlana Cheikh Seydi Ahmed Tidiane dafay taxaw taxawaayu sikar bi maanaam booy waxtaane Cheikhu Tidiane yaa kii sikar yéen a bokk tiyaabu yéen a bokk atte ngir zikkar lum lay jox mooy tumaaninatul qalb xol bu dal zikkar lum lay jox mooy dellu ci yàlla zikkar lum lay jox mooy gën a sawar ci jaamu yàlla ak gën a bëgg ci yàlla bëgg yàlla booy waxtaane Cheikh Ahmed Tidiane da lay jural loolu yëpp moo tax bàyyi sax ci xasida boobu aw biñ koy baar biñ koy awoo mooy fa matxu cheikhi awraad yi mu ngi lay won ne waxtaane cheikh zikar la mu ne fa matxu cheikhi tagg cheikh awraad yi mooy samay awraad man alxaaji ibrahima Niass fa mat matxu cheikhi maanaam baati arab lu yu leer la ñëpp ko xam fa matxu cheikhi tagg cheikh awraad yi moo di samay awraad man an alxaaji ibrahima Niass wa idaad yi mooy li ma xaroo mooy li ma préparé dencal ko yàlla bu ma ñëwee ci yàlla lu ma laaj ne ma loo def xoolal waxul alquran yam doon jàng waxul julliya waxul woor ya waxul alal yam daan dépensé waxul lépp lu baax lam daan def ne moom la denc mais dane tagg gi muy tagg Cheikhu Tidiane moom la denc préparé pour mu nekk yóbbalam digam ak yàlla ëllë mooy li ma xaro pour sama borom wa fa madxu cheikh awraadi wa ahzaabi wa idaadi waaw wa ahzaabi mooy samay xisib xam nga ahzaab du ahzaab quran kese am na lu ñuy wax xisbul bahri am na lu ñuy wax xisbu sayfi am na lu ñuy wax xisbul barri ahzaab mooy rek ñaan yu bëri yi wali yàlla yi daan ñaan nee na ñaanam yooyu awraadam ak ahzaabam yëpp tagg cheikh la wa say fii bay na bayna addaad yi ndekete Cheikhu Tidiane jaasi la ndeke Cheikhu Tidiane armu la bàyyi mu ne wa say fii tagg cheikh mooy sama jaasi bayna addaad yi diggante samay sofaan maanaam bépp noon bu mu bëgg alag rek damay tagg Cheikhu Tidiane tagg wa soppi ku nekk jaasi dal di lay gor te Cheikhu Tidiane wax na ko nee na say fii muallaqun fi lhawa man rafa raasahu qataa maa ngi wekk sama jaasi ci ci jaww ji ku siggi rek mu lelli la maanaam li mu bëgg a wax foofu mooy sama marta baa ngi tiim marta ba góor yàlla yëpp képp ku yóotu sama marta ba rek ñu rekki la loolu mooy jaas ji dagg ndoddal wali yi bépp wali yàlla bu yemut ci tëddub yaru jox xorma Cheikh na Ahmed Tidiane rek bu siggee rek marta ba Cheikh Tidiane fàddu ko moo tax bëri nañu yàqule te fekk marta ba Cheikh a leen yàq radiyallahu anhu ala kullin wa sayfi mooy sama jaasi bayna abdaadi diggante samay sofaan wa huwa rawxi ñoom kebe nag ruuxi rek lañuy wax mais bu leen di maasati damm de leen ko maas fatxa fa huwa rawxi mooy sama oxygène bi may nokki wa rayxaani mooy parfum bu neex bi may xeeñtu Cheikh Ibrahim moo wax loolu maanaam benn baytu boobu fa madxu cheikh rek bu ko nit ki settantalee dina xam benn bàyyi fan la teg Cheikh na Ahmad Tidiane dina xam ni Baye fonk Cheikh na Ahmed Tidiane mais ci biir bayt bi dinga xamee xamee madadu Cheikh ak barkeem ak tëbboom naka la toll. moo tax baytu boobu boo gisee mu tànn ko ñu def ko biir xasida boobu amul nu ci bàyyi leeralewul tijaaniya amul nu ci bàyyi wanewul teggini taalibe amul nu ci bàyyi wanewul ngëneelal Cheikh Tidiane amul nu ci bàyyi wanewul ngëneelal werdi yi amul nu ci bàyyi wanewul ngëneelal taalibe Cheikh Tidiane yu mag yi def na ci ñetti wët ñetti lahu maanaam lim duñ njëkkee ne day tàgg ba yàgg ne ko fa ibrahimukum haza fa ibrahimukum haza muhibbun minka qad aaza ala ahdin lakum laaza wa yarju sabqa aqran وإبراهيم محب منك قد هذا على هدي لكم لا ذا ويرجو سبق أقران damaa damay damay ñëw rek ci Chérif Hamza laa bëgg ñu jox ko hadiya moo tax ma bëgg a tàngal xaalu taalibe pour bu ma laajee hadiya ma am lu bëri waaye waxtaan baa ngi ñëw ci kanam mu ne Maulana Cheikh Ibrahim xoolal fa ibrahimukum haza mu ne Cheikh Tidiane sa Ibrahima maa ngi nii fa ibrahimukum haza sa Ibrahima maa ngi nii Cheikh Tidiane ne ko lu xew mu ne ko xanaa muhibbun sab soppe la sa Ibrahima maa ngi nii di sab soppe yow Cheikhu Tidiane te kat min ka qad aaza ci yow lay làqu xam nga aaza ak laaza duñu benn al aaza yu yuxaafu wa laaza mimma yuraadu arab bu ne la lustu bi daa am lu neex lu bëgg di ko wut ci yow bu waaye ustu bi mooy daa ñëw làqu sa gannaaw pour nga musal ko moo tax danga auzu billahi min asheytan gis nga dangaa ragal seytaane nga ne yàlla auzu gis nga bi ka yow yàlla min asheytan moo fa ibrahimukum haza muhibbun minka qad aaza ci yow lay làqoo yow Cheikh Tidiane yaay taxsinam yaa koy taxsin ala ahdin lakum laaza sa kóllëre nag kilo weeru bim jaayanteeg yow wax na ko benn lettre bu mbind bind benn shérif na ko kere xawmaa yaakaar ne am na leneen lu am ci àdduna lu dul tariqa Tidiane mu ne ko dem naa ba nekk mag ci laa door a xam ne ndekete am na leneen lu dul tariqa tijaan ci koo suuf Cheikh Ibrahim moo wax loolu mu ne ko te néew na it benn kayit buñ bind ci tariqa tijaan te du ne sama baay Alaaji Abdoulaye Niass am na ko mu ne te bi ko sama baay Alaaji Abdoulaye amee yér naa ko xam la ca nekk moo tax xawma lu dul ak tijaan mu ne bi ma jaayantee ak sama baay jël weer du tijaan boobaak tey mosuma ko bàyyi benn yoon mu ne te bépp waliyu yàlla budul Cheikhu Tidiane dama ko sallaytu alayhi salaatal janaasa jullee naa ko jullee néew wax na sax lu wax na wax na ko sax fu gën a leer fa lii fi tariqil xatmi ahmada man haju wa amma tariqul xayri laa atanhaju dégg nga mu ne man tariqatul xatmu Cheikh Sidi Ahmed Tidiane mooy sama tariqa man El Hadj Ibrahima Niass beneen tariqa budul boobu du mas a nekk sama tariqa mu tàgg tariqa bi ne tariqun biha tufal jaraimu kulluha wa walijuha fi illiyina mu wallaju mu ne mooy tariqa boo xam ne ci barkeem yàlla day jéggale bàkkaar yépp ku ci tàbbi rek dugg nga àjjana illi yi bàyyi moo wax loolu wa ala kulli xaalin ñuy sant yàlla di ko gërëm ci jotaay bu barke bi sunu sëriñ sunu sunu sang sunu soppe dégg nga al al cheikh abdourahim mu ngi nii toog ak ñun di dereti maolaana cheikhul islam alhaaj ibrahim Niass ñi di ko yaatal di ko dalal di ko xamal ne guddi guddee ma jotaay bi jotaayam ma lu wax loolu la wax lum bëgg lool lañu bëgg bu boobaa nag e, chérif euh, mouhamadul muxtaar mi nga xam ne moom itam sëtu seydi mawlud Fall la sëtu cheikh mouhamadul haafaz la ndax euh, seydil haadi wuldu seyid loolu la ko yàlla may dafa nekk sëtu cheikh Mouhamadul Haafas di sëtu Seydi Mawlud Vaal fa tabaarakallaahu mu ngi nii toog di sunu soppe di sunu xarit mu ngi may fàttali conférence bu ma doon def fële Kër Gan ñu bokkoon jotaay ba man ak moom ak xaaj misri ak ñeneen kilifa jazaahullahu ahsanal jazaay bu ko defee ma bëgg ana man xawma ci Seyda Ami Jalaay njëkkee xawma ci Cheikh Abdou Ndaw ndaw ndaw ja jàkkundaa yi baax nañu mais ndaw kundaa yi nag baax nañu ndaw kundaa yi daal am nañu bu zamaan nag ca ca daaru salaam ah nee na dina nee na ubbi na géew bi dina dina dina wéef uh, sëriñ bi cinquante mille shérif bu ko waxee dana ko def léegi nag euh, ma bëgg ñu teral Sidi Hamza si guddi gi xam ngeen yàlla boole nañoo ak moom bu ngeen déggee sama baat bi mel ni lu dee ñaari fan yi yëpp naga si biig ñu ngi jóge fii ci Tëngéej fa la ñuy wax sànc ba waa kër Seydi Hadji Malick yi ne foofu doon def guddi Cheikh Tidiane ñu àndoon fa man ak moom الشاطئ الله الله الله يحركه والدور بداق لبة العين وكل عين يتجلب أعينه فلا يطيب آل لآل مجعل حب القطب أحمد سيدي وزارة الأسرار في كل موضع ممد رجال يحيئوا بتفريق أعيان تتحظى بموضعين فإن الأوامر قد مهم لغيرها على ضبطها تنتهي كل أنفع ذلك سلطان خير من عين ولا تطوع من ذكرها من عالي ولا عيوسا لمالك من فعيل ومهما بدا شيء سواه فعن به فلا سيء الا الحال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 xutbul maktuum ni mel ak waliyu yi mu ngi mel ni weer ni mel ak jant moom Cheikh Tidiane mooy wax mu ne wa huwa allazi xaaza jamia ma inda al awliyaai min alkamalaati alilahiyati wal asraari rabbaniyati waxtawa ala jamiciha nee na xutbul maktuum mooy ci làq mbooleem la nekk ci wali yàlla yi ci ay mat yuy ko yàlla ak ay mbóot yuy ko jug borom bi kamaalaat al ilahiya ak al asrar al rabbaniya mu tudd turu allahu tudd turu rabbu ne mëdët bi bàyyikoo ci turu rabb di ay secret ak mëdët bi bàyyi ci turu allahu di ay mat-mat mboole seeni tëb yooye mu ngi daje ci alxutbul maktum beneen wali yu budut moom rabbu bu sottee ay mëdët mën na caa am benn walla ñaar mbaa mu am ca lu yàlla soob waaye du am lépp allahu itam bu tëbbee la mu tëbb beneen wali mën na ca am benn walla ñaar waaye nag tëbb mi nga xam ne day bàyyi ko ci allahu mboolem tëbb ya bu dee ci yonentu yi mennum seydina muhammad rek ci moom lay daje gannaaw yonent bi nag bu dee ci waliyu la ci alqutbul maktum rekk lay daje mu ne wax na it ne ana sayidul awliya kama kaana sallallahu alayhi wa mu ne man cheikh sidi ahmed tijaani radiallahu anhu maa di sangu mboolem waliyu yàlla yi ni sama maam nekke sangub mboolem yonentu yi bi mooy sangub anbiyaawu yépp cheikh ahmada tijaani mooy sangub bu lawliyaaw moo tax niroo nañu ay tur yonent bi moom la ñuy wax sayidul anbiya cheikh na ahmad tijaani ñu di ko wax sayidul awliya yonent bi sallallahu alayhi wa moom la wax xatmul anbiya cheikh na ahmad tijaani moom la wax xatmul awliya yonent bi moom la ñuy wax xayrul anbiya cheikh na ahmad tijaani ñu naan ko xayrul awliya bu boobaa pour nga comprendre mën mingale méngale cheikh na ahmad ak yonentu bi mooy dangay xam ne rek daal yonentu yàlla muhammad ni mu mel ci biir yonentu yi noonu la cheikhana ahmad tijaani mel ci biir waliyu yi yonentu mooy sangub yonentu yi Cheikhna Ahmada Tidiane mooy sangub wali yi mu ne falaa yashrabu waliyun wala yusqa illa min bahrina min nachati alaalami ila nafxi fi suuf mu ne benn waliyu yàlla du naan ak leer mbaa sekkere mbaa xam-xam mbaa mu jot maqaama wala martaba fa yàlla illaa ndare ne leer ga min naa mu ngi tukkee ci sunu géej gi ñun Cheikh Ahmada Tijani loolee bala mu koy am faw mu ñëw ci sama biir géej gi ci xuus ci ci biir géej googu la koy amee géejam googu nag manees na koo firee lu bari waaye rek prix mi gën a jege pour ñu bañ a sori mooy ne daal la muy am am tëbbam lay doon tëbb la muy bàyyikoo ci xadraam moom Seydi Ahmed Tidiane ca tëbb moomee la bépp wali di am la muy am ci way jëkk ak way mujj mu ne min nachati l aalam ila nafxi fi suuf dippi ba ñu sosee aalam bi ba kera ñuy wal bufte ga Ahmed Tidiane dimbale ma ci micro mu ne itam moom cheikhana tijaani inna jamia al awliyaai kullihim inna jamia al awliyaai kullahum yadxuluuna zumratana wa yatamassakuuna bi tariqatina wa yaxuzuuna awraadana min awali alwujudi ila yawmi alqiyama cheikh na ahmada tijaani mu ne mbooleem wali yu yàlla yi ñoom ñëpp nee na bàyyiwuma kenn danañu dugg ci sama mbooloo mi man cheikhu tijaan amul kenn kuy doon aw waliyu te fekk na duggoo ci sama mbooloo kon ñu xam ne kon waliyu yëpp ay tiijaan lañ waaye am ñoo xam ne dañoo nekk tijaani yu ahdan ñi nekk tijaani yu madadan Mawlana Cheikh Ibrahim Cheikh Mbow mu ngi koy wax ca saayiqif kullu sirrin fil baraya maddahu siru tijaani البيان كل سر في البرايا مدد سير تجاري كل فهل صار نجلا من تهام او يمان كل سر في البرايا مدد سير تجاري ndeysaan Mawlana Cheikh Ibrahim ñaari kulloom yooyu leeral na mayu Cheikh na Ahmad Tidiane benn bi daf ne kullu sirrin bépp secret fil baraaya bu nekk ci mbindeef yi nee na bàyyi na bul jaaxle di wër sirru ba fum mu fum fu mu cosaanoo bàyyi mu ne sirru boobee maddahu la tëb sirru ba mooy sirru Tidiane yi mooy mbootum Cheikh Tidiane secret boo gis ci àdduna bi rek muy nag secret zahir muy secret batin ba ci technologie ni mu avancé àdduna bi ni mu développé ci ñii ci scientifique yeeg savant yi ak xam-xam ni mu màgge ci àdduna secret yee koy doxal yépp mu ngi bàyyi ko ci tëbb Cheikh na Ahmed Tidiane waaye nag ñi nga xam ne dañu aju ci tariqaam bi yore ay werdam bëgg ko xam ko nekk ci diine yonent bi ñooñu Cheikh na Tidiane mu ngi leen di tëbbi ci wàllu ndeyjooram waaye ñee nga xam ne nag mën na am sax duñu ay jullit waaye xatta ñi dul ay jullit ci àdduna bi bala balay feeñ Amérique di feeñ Angleterre di feeñ Chine di feeñ fu mën a doon ci xeeti xam-xam yuy jaaxal doomu aadama yi xam-xam yooya Seydi Ahmed Tidiane moo leen koy tëbb waaye moo leen ko tëbbe ci wàllu càmmoñam waaye tëbb mi yëpp ci moom la bàyyi ko moo tax Cheikh Ibrahim ne kullu sirrin fil baraya bàyyiwul kenn sirru boobee maddahu la ko tëbb mooy sirru tijaani mooy mboodu Cheikh Ahmad Tijaani huwal waxtu boo ko bindee te huwal waxtu boo ko seetee mooy huwa moom al waxtu mooy waxtu wi boo bindee huwal waxtu boo ko adadee mu ngi lay jox 548 mooy Ahmad Tijaani kon cheikhu tidiane huwal waqtu huwal quutu boo ko adadee mu jox la 548 mooy ahmadu tidiane huwal waqtu wa huwal quutu mooy waxtu wi te mooy dund gi mooy dund wa huwal quutu cheikh mooy dund gi moo tax sax bàyyi ne ko alaw naa min fa cheikhi sirrahu ahda li wa lil aadaa sumuman summa lil abdaani am daadan bi ihsaani cheikh dama bëgg na nga nga jaxlaf bu ma waxee sayqi sirrul ada li ahbabi wa lil ada sumuman summa lil abdaani am daadan li sahbaani eh, am daadan bi ihsaani bi ihsaani mu ngoog an mada aw aqsir fa darkul wal binaadir wala min zar asri ilbaar walaw afnaytu asmaa ndeysaan xam nga li ma soxla foofu mooy walil abdaani am daadan bi ihsaan nee na jëmm yi yaram yi li leen di tax a nes-nes yi tëbbum Seexu Tijaan la bépp yaram bu tëbbum Cheikh Tidiane des ci moom boroom day làpp dafay ñaaw bu dee jigéen ju doon diwu la kanam nga day ñàppaaral bu tëbbum Cheikh génnee ji moom wa sayqi sirrahul ahda bi ahbabin wa lil aada sumuman summa lil aadana amdadan bi ihsan Mawlana Cheikh Ibrahim mu ne fa cheikh sama sëriñ Seydi Ahmed Tidiane ahda sirrahu li ahbaabin nee na cheikh daa am ñaari kaas bii kaas soppe yi la koy nàndal bii kaas noon yi la koy nàndal nee na soppe yi cheikhu Tidiane kaasu sirri la leen di nàndal mooy kaasu secret yàlla sirrullah képp ku ko sopp dalay nàndal kaasu leer mu ne wàllil aadaan ak sumuman mais mu ngi am kaasu summi summu mooy poison yàlla nañ ci yàlla musal nee na képp ku ko noonu nag dalay nàndal kaasu poison tey dama toog rek sama benn xale sama benn doom envoyé ma benn vidéo mu ne ma dama bëgg nga xool vidéo bi nga baal ma àq nag ma ne ko baax na ma xool vidéo bi gis benn waay seen morom la woon jeune la mu nga woon France te man xamoon naa mbiram nekkoon ci réseaux sociaux yi lu bon lu nekk mu koy wax Cheikh na Ahmed Tidiane man yàgg naa xam ne xamoon sax jëmmi ji gannaaw gi laa xam jëmmam mais bi ma bi ma commencé xam ne kii day wax lu ñaaw ci Cheikh na Ahmed Tidiane laa xam ne kuppe nañu courant ngëm yàllaam bu yàgg-yàgg Cheikhu Tidiane képp ku ko bañ mbaa nga di ko noonu sa courant sa branchement iman billah dañ koy coupé dootoo amati xalaawatul iman dangay ngay ñeme yàlla da ngay ñeme bàkkaar te doo ci tuub te dangay ngay gën a da ngay gën yàlla yi dootoo bëggati mbaax ku bañ Cheikh Tidiane noonu lay mel e ñu dox tuuti am ku ma wax démbi waa ji ma xam ko fan yii nag ndegete xawma Facebook lañ koy wax xawma YouTube ndekete mu ngi tas ngir moom ay njombe yum doon def ak ay jigéen jigéen ña filmer ko enregistré jël yëpp tasaare ko ci internet bi ne moo gën a torox ma tottar te moo gënoon a aay ci wax lu ñaaw Cheikh Tidiane wax lu ñaaw ci Baye Niass wax lu ñaaw ci taalibe bàyyi ah waaye tey de li ñaaw lépp këpp na ca kaw loolu mooy li bàyyi ne fa cheikhi sirrahu ahda li ahbaabi sama sëriñ Cheikh Tidiane mbóotam mi jox na ko soppeem ya walil aada sumuman noon ya jox na leen poison walil abdaani jëmm ya jox na leen tëbb bi esaani cig rafetal loolu moo waral mu ne kullu sirrin fil baraaya maddahu sirru tijaani mu tegaat ci ne kullu faxlin saara najlan min tihaamin aw yamaani parce que kullu faxlin saara najlan min tihaamin aw yamaani mu ne kullu faxlin bépp kuyal waliyu yàlla bépp waliyu yàlla bu doonoon kuuy saara mujj na nekk naj lan di mbote ci kanamu Cheikhu Tidiane mu ne Cheikhu Tidiane kuy yëpp kuy laadum yeeg azawaat yu mag yi ñoom ñëpp ku yooyu ñu daan yéem naan kuy yaa nga bi Cheikhu Tidiane ne tëll ci seen kanam ñoom ñëpp dañoo nekkat ay mboto yu feragu bàyyi mu ne kullu faxlin bépp kuuy kuyal waliyu saara mujj na nekk naj lan di mbote mintihaamin nag moo kam moo xam nag tihaam la maanaam eh, tihaamata mooy dégg nga ca xuri màkka ya aw yamaani walla ca yaman daa bëgg wax ne penkook sow ndeyjoor càmmoñ fu fi kuyal wali yu yàlla mas a nekk kuyal wali yu loolee ba Seydi Ahmad Tijaan ne jalañ kuy loola daa mujj nekk mbote fasa cheyqu chamsun wal utubu kawakibun تغيب النجوم حين زرزك ba tey de bàyyi bàyyi Cheikh Abdourahim ma wax loolu. mu ne fasa cheikhu sëriñ bi cheikhu Tidiane Shamsun mooy jant bi wal xutuubu waaye xutbu yëpp yi moom kawaakibun ay biddiw lañ bàyyi ne taxiibu dana dana dana faddu dana suux nujuumun mbooleem biddiw ya xiina zarra jamono ba fenkee na zukaawu jant ba mu ne Cheikhu tijaan mooy jant bi yeneen wali yi ñooy biddiw yi mu ne xam nga ne nag biddiw fu jant xës ba fenk biddiw day suux kenn dootu ko gis bëccëg biddiw yaa ngi ci asamaan waaye doo gis biddiw yi ci bëccëg lan moo tax leeru jant bi moo mëdd leeru biddiw ya mooy nag ni jant di nëbbee leeru biddiw noonu la leeru wilaaya Cheikh na Ahmad Tidiane di nëbbee wilaaya kudut moom képp kudut Cheikh Tidiane bu Cheikh Tidiane ne tëll sëg wilaaya day raaf wilaaya ak Cheikh rek mooy taxaw ci kanam radiyallahu taala وغيل مستمد ومن يقس أميرا بمأمور أميرا kaay ma wax la kuy cheikhu Tidiane mu mit dun mooy aji tëbb ji wa xayrun waaye beneen wali bu dul cheikhu Tidiane mustamidun day sàkku ku ko tëbb moom rek mooy kii tëbbaate waaye ku dul moom nag dangay sàkkuñu sàkku ñu tëbb la bàyyi mu ne nag kon Cheikhu Tidiane mooy buur wali yàlla yi ñoo ay dak waman yaqis képp ku xiyaas di gam-gamle amiran buur ba bi maamurin ca kamu nguuru kay def xiyaas ba alayhi daa nekk ci koom rek xitaawu kiiraay kooku daa am kiiraay waaye képp ku kiiraayam wuriku du masa xiyaas buur ak baadoolo du ma sa buur ak dagam du masa sa nattale jaam ak sangam misaal moomu la Mawlana Cheikh Ibrahim joxe ci Cheikh na Ahmada Tidiane amru kullil wujudi fi kafi shayqi hmm. min karihu samumi min kanazim yàlla na yal nañu yàlla fayal Cheikh Ibrahim Niass bu dee tagg yonent bi day wax dëgg-dëgg yonent bi bu dee tagg Cheikh Tidiane day wax dëgg-dëgg Cheikh na Ahmed Tidiane nga ne mu ne amru kullil wujudi fika fi shayqi min karihu samumi min ka nasimo شهدي من قريب منير كالنسيم مطلبي عتبة الإمام سريعا وسراج يهدى لنا مستقيم رضي الله مولانا شيخ إبراهيم مني أمر هذا الوجود mbiru mbindeef yii lépp mbindeef yi seen mbir yépp fii kaf fi cheikh mu ngi ci tenqub sama sëriñ mu ne mbindeef yëpp seen mbir mu ngi ci tenqu cheikhu tidiane kaw nu bi yépp cheikhu tidiane ko ngëp téye bu ñuy wax borom jamono cheikhu tidiane moo ngëpp borom jamono ka nekk borom jamono ci wëli yu jamonoom bam demee ba ngëpp jamono Cheikhu Tidiane da koy ŋëpp mook jamono yëpp boole leen def ko benn ŋëpp moo tax bàyyi mu ne amru haazal wujudi mbiri mbindeef yile fii kaffi cheikhi mu ngi ci tenqub sama sëriñ mu ne min ka tukkee na ci yow Cheikhu Tidiane ar riixu nasim ngelaw lu neex lu sedd li ngelaw lu sedd li neex li nga xam ne mooy oxygène bii nit ñi di nokkee nga xam ne ku ko manqué le dee nee na ngelaw loolu moom ñu koy espire moom ci Cheikh Tidiane lay bàyyee ko wa min ka samumu waaye nag ngelaw lu tàng jër li nga xam ne bu uppee garab gu mu romb mu dee ñax gu tooy gu mu fekkoon yaa ngi tooy bu la ngelaw li uppee nga wow nee na ngelaw loolu ci Cheikh Tidiane lay uppee xam nga nawet buy door a taw bët set bi naaj woowu di naaju nawet comme jamono biñ toll nii moom lañu ñuy wax naaju dundal ndax jamono boobu riixu nasim mooy upp ngelaw lu neex lu sedd loo xam ne day saxal gàncax naaj wi nekk dégg nga xaraaratul xayaat tàngooru dund waaye gis nga buñ demee ba loolu jot taw yu mujj yi ngelaw loolu di upp ñu naan ko ngelawal jaas ngelaw loolu bu uppee rek da gis ñax yépp commencé lax gerte yi lax dugub yi lax ku amoon sa toolu gerte boo gaawul dekk ko soo moytuwul sax gerte gi day ruus naaj woowa di upp ca jamono booba moom la ñuy wax xaraaratul mawtu mooy naaju rey moo tax mag ñi ci wàllu mbey ci njëlbeenu nawet danañu naajal xëy naaja teel a gont waaye ci mujjantalu nawet dañuy teel a xëy naajee gont dañuy bàyyi dañuy teel a xëy ci mujjantali nawet balaa naaj waa tàng ñu wàcc ndax naaj woowu baaxul ci yaram day rey si biru ku ci si biru rek soo moytuwul da ngay dee naaj woowu nga xam ne eh, bu dee ngoon la dañuy bàyyi ba julli tàkkusaan door a gont dem nekk ca tool ya ba boori timis ñu door a wàcc ñi xam liggéey xam nga lu ne nag daa am sëriñ jamono bii boo gisee njuumte bëri lépp dañ ciy dugg te duñ ci am sëriñ ndaw ñi xale yi boo gisee sëy yi di yàqu couple yi di jaxasoo mooy xale yi dañuy bëggante ci mbedd mi rek te duñu jàng sëy sëy dañ koy jàng xale bu jigéen bu mun a bonteeg ndeyam ku ko bëgg na ko wax yaayam lu ko waaja wax na ko wax yaayam yaayam jaarale ko ci yoon xale bu góor bu rusee baayam na seet nijaayam buy dugg ci ngoro waxtaan ak moom mu tegtal ko waaye loolu moo amatul métier tey ñu bari duñ ko jàng ba qualifié bu ñu wut barke dañuy yàkkamti ba ci tool yi it noonu la mel mbéy mi sax gaa yi jàngatuñu mbéy dañuy tañax tañaxi rek moo tax xale yu bëri danañu investir lu bari ci seeni tool te duñ fa am dara waaye Baye mu ne Cheikhu Tidiane ngelaw min ka riixu nasiimu min ka sumuumu ngelaw lu neex lu sedd li ci yow lay uppee waaye ngelaw lu tàng lu naqari li itam yaa koy upp yow Cheikh Tidiane loolu dafa firiwaat waxam ja ca fa madxu ahda sirrahu li ahbabin walil aada sumuman rek maanaam secret bi mooy ngelaw lu neex li tooke ji poison bi mooy ngelaw lu naqari li ngelaw lu tàng gis nga xasida boobu haaja fi lqalbi lishtiyaaqun qadimun lilladi alaahu ljalilu lqadimu xasida boobu bàyyi wax na ci cheikh na ahmad tidiane lu ko kenn mosta wax haaja fi lqalbi déedéet départ départal ci fi muy naan wa huwa wa huwa aljaamiu alladi yajmau al anwaara وهو القليل والكليم وهو روح الإله وهو حبيب الله أمري ما هذا هذا أريب رضي الله عنه demal ca fa muy waxee naan sayyidul aarifina wal malku fihim sayyidul aarifina wal malku fihim waarisul mustafa al-ali al-azim مكتومه مول خلال مول جلالها مول خلالها إلى تاج ليس يدريه وهو العليم بينك ثم نودي xam nga xam nga mool bi mool bi dafa yàq foofu وهو مكتوم الجلال la ñuy bind waaye xilaali la Oustaz Barham Diop moo ma ko wax وهو المكتوم الخلال عن الأخ تاب ليس يدري وهو العظيم بينك ثم نودي moom moo wax itam ne moom oustaz boobu dañuy topp diiwaan bi maag xaaj misri ca maatamulaana léeg bu ñu yeggee ci bërëb ñu ñu sikki sàkka dañ koy woo ci Sénégal fii ci téléphone mu ne man de nangam laa mokaloon ba ci eh, xas bii bii bu gàtt bii ngay gis ñu ci bëri ko yàq fajaal fuaadi ka saxrin wala tudirhu la mool bi bind waaye oustaz ne na daat bi bokku ca tomb ba nekku fa warta am tomb wala tusirhu ngay wax fajaal fuaadi ka saxrin walaatu tusirhu ka baani واجعل فؤادي كالصحرين ولا تزهره كبال dégg nga daf ne yow sama borom maa ngi lay ñaan man Baye nanga def sama xol bi ci ngëm yàlla ak yaqiin mu dëgër ba mel niw doj wala tusirhu waaye nag bul def sama xol bi mu mu mujj mu ngi jóge ci saara yasiru boo ko defee jazam lam yasir boo ci tëjee euh, du'a wala tusirhu rek la mën a doon wat mënta nekk wala tudurhu ndax tudurhu daara lay firi bu boobaa kabaani maanaam du génn loolu mooy li ma doon wax sànq di ko junj mbindu sëriñ bi il faut que dafa laaj nafaraat fajaal fuaadi ka saxrin sama borom defal sama xol mu dëgër ci ngëm ak yaqin ba mel ni aw doj nga xam ne sama ngëm yàlla kenn du ci man dara aka a ñu bëree bëri tey ñu ngi dundumee ñu ngi ci sikki sàkk am na sax ñoo xam ne ay jullit la ñu ngi sikki sàkk am na ñoo xam ne ay tijaan la ñu ngi sikki sàkk am na ñoo xam ne ay taalibi bàyyi lañ tarbiye na bañ ne leen nit ñoo ne ma man damaa bëgg a tarbiye wu waat ma ne ko kon tarbiye woo woon tarbiye woo tarbiye woo ndax da dañoo amul yaqin loolu moom la Mawlaana di ñaan fajaal fuaadi ka saxri ma maam maam Bas. waaw maam Basir bu bu ma Alaaji Mor Zeynab. waaw ci gàmmu Keyoro. waaw bàyyi ne ma bindal ma bind. waaw mu commencé wax. waaw mu ne mu ne yejid aayiduuna laa mu ah. ma dégg ci jamono ji ñu koy jàng. mu ne ah, waaye bul mujj def sama xol bi ka baani mu mel ni gàncaxu baan déggal baan ca burdu ah bi zikril baani wal al baanu moom la ñuy wax caxatu maam yàlla caxatu maam yàlla bant la boo xam ne dafay sew te gudd bant bi nag du taxaw benn place nii rek lay def ngelaw bu uppee mu yëngu bu uppul mu yëngu bàyyi nag muy misaal ne xol bu amut yaqiin ci yàlla day mel ni garabu baan boobu moo tax mu ne fajal fuaadi ka saxri yàlla na nga def sama xol mu dëgër ci ngëm ak yaqiin ba mel ni aw doj walaatu tusirhu waaye yàlla boo mujj def sama xol yow sama borom ka baani mu mel ni gàncaxu baan radiyallahu anhu léegi nag euh, sëriñ bi junj na ma ci téléphone bi ne waxtu wi jot na bu ko defee kon euh, cheikh euh, Thioubou cheikh Mbow cheikh Tidiane wala cheikh Ibrahim cheikh Ahmad Tidiane cheikh Mbow bu boobaa nga noddu salaatu sëriñ bi jiite ñu ñuy julli dégg nga اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبقنا سبقنا الصلاة إلى صراط المستقيم وعلى الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا kenn ci waa Palestine nii nga xam ne ñëw nañ ci bàyyi ci jamono jooju ba am ci ñoo xam ne fii lañ dee ñu suulañ Medina Baye bi Baye Talib bi yóbbu na moom ba ci bàmmeelam ba ba ma ba wal ma ko ñooñu ñuy tuddee waa Hamas noonu waa Palestine yooyu ñuy tuddee waa Hamas am na ñoo xam bi ñëwee fii bàyyi fii la leen dalal ñu dëkk fii nekk fi am ñoo xam ne biñ gaañoo ci armée Medina Baye yi lañ leen suuf yaakaar naa jamono jooju moom rek a fi ñëw loolu moo tax nag buñ demee ba jamono jii ci période yi ñi nekk nii buñ demee ba àgg foofu noonu jullit yëpp ñu ngi di ñaan di leen fukk di leen ñaanal di dund dund dañuy dund waaye nag am ci loo xam ne moom kenn mënu koo xaccu bàyyi ndax ñu ñëpp dégg nañ vidéo yi ak kese yëpp dégg nañ ko bàyyi taxaw ci mimbar bi di lay ñaan yàlla allahuma demi dawlatu israil wa demil kullu quwatun tusaid israil allahuma demi dawlatu israil wa demil kullu quwatun tusaid israil allahuma demi dawlatu israil wa demil kullu quwatun tusaid waaye yemen yi nga xam ne ñu ngi leen di jàppale ñu ngi leen di ñaanal yàlla Abdou Malik al Houthi mi nga xam ne mi ngi yaaw a jàppale waa Falastin yooyu yàlla leen yàlla dimbale yàlla leen yàlla jàppale Hassan Nasrallah amin al am lil Hizbillah mu waalee li Iran ñu ngi koy ñaanal yàlla Hassan Nasrallah amin al am lil Hizbillah ñu ngi koy ñaanal yàlla yàlla guddal fanam yokk wéram waa Iran ñu ngi leen di ñaanal yàlla yàlla may leen gudd fan may leen wér may leen jàmm te may leen bombe atomique waa Iran yàlla leen yàlla may bombe atomique waa Iran yàlla leen yàlla may bombe atomique te am na ñu koy te am na ñu ko am di te am na ñu koy am na ñoo xam ne dañ leen ko daganal ba pare di ko xaraamal nii bombe atomique baaxul mais am na ñu ko am di dañ koy interdit nii di ko may nii ma xam naa li xew information du ma ci jug ak gestion du ma ci jug guddi ak bëccëg maa ngi ci mu ni du ko dagal ni ni Sénégal amee jamono am ku ma am ndey ak ku ma amul ndey hmm? bitim réew noonu la amee ku ma am ndey ak ku ma amul ndey ndax Amérique Israël lu mu def neex na ko Amérique lu Israël def neex na loolu kon nag lii di Iran إليد اليمن إليد حزب الله lii monsieur miliciyaat mu nekk Irak ñu ñëpp yàlla nañu yàlla dimbale yàlla nañu yàlla jàppale bañ am ndam ci kaw Israël yàlla mën na loolu yàlla na ko def di ñaanal Seyda moom tamit waxoon naa Chérif mu ñaanal ko mais ñu tamit ñu ñaanal di ñaan tund wii maanaam tënge gii Rufisque gii xaw ma soppeeku na xaw ma nag soppeeku hmm? di ñaan fayda bi jug fi yëkkati ko fi bu baax baax baax waaw gars yi dañuy nelaw rek Rufisque yii fayda bi yëkkati yëngatu fi daal te buntu fayda bi su ma fàttewut te juumuma hmm? yaakaar naa ne mooy ko daal daaw di joxe fii ci li ma foog ci li ma foog ko daaw di joxe fii lañ li ñuy wax mbuur maanaam boo demee ba mbuur hmm? nga xam ne boo fa bëggee dal ñu ne ne sekkeen gii nii fi la daan bàyyi di ñëw di dal hmm? te loolu xam nga man fekke moom hmm? waaye tamit yaakaar naa que daal Jadara gi nii bokk na ci kër kër yi gën a mag fii ci ci Rufisque gi ci ci fii nii waaw. fan na Cheikh Nasser daan def gàmmu foofu la. Baye daañ ñëw di fi daal fii ci kër gi fii ba Pa Daawuda Jadara moom ci boppam. doomam ji Fat Diop ñu ñu tudde ko yaay te te te gars di ko ooyee foo ñu jël ko may ko sama mag Nasru kon nag kër googu noonu am na taarix bu rëy ci Baye moo moo jël mais maire bi boole kook ñoom daw jatara ba bi génne àddina fii la génne àddina ci rufus gi fii la génne àddina waaw ba Paa Daawa jatara nettali ne ne ma ne ne jabar dañoo bëgg a dem aji Màkka mu ne bàyyi óolu ñu fekk am na ñeneen ñoo xam ne waroon nañoo ànd ak ñoom bàyyi oluñu may eeg fii nii fajar hmm, dama uyu sa bàyyi ba ma demee ba ci ne ma aji màkk gi ren ñun dañ koy fomm ba déwén bi ma wàññeekoo ñu ñëw am na ñu ñoo xam waroon naa ànd ak ñu affaire demee noonu leen sama sëriñ dafa xam ne naa fomm ñun duñ fomm mu ne waaw kon mën ngeen dem ma sama sëriñ yoo na naa toog ñoom ñu demee aéroport waaye bañ demee aéroport avion tey suba comme problème avion euh, avion bi tey ak suba te bu yëf yi ak problème avion noonu la ndax saa yee gannaaw gi ñuy ñëwaat ci na ko yóbbu yóbbu suñu sëñ bi mu ne noonu noonu la bàyyi jigee tukki war a ñëw mu ànd ak benn mu xaddam dama fàttu turam bi ah mu ne ñu war a dem toog war a dem aéroport dem teeri teer ci teer jubaay mu ne waa ji nee na damaa bëgg a toog ci aéroport bi gis gis gis ñaari cëpp bàyyi ñaari cëpp yi waaw ñaari cëpp yi lolo ñaari cëpp yi waaw mu ne ñaari cëpp yi léegi bu ñu toogee avion bi ñëw ba dal mu ne benn cëpp baa ngi ne bu ñu ubbi buntu ba bàyyi wàcc avion bi mu ne beneen cëpp baa ngi noonu kon nag ñu ngi ñaan yàlla di sawal ci yéen Cheikh Mouhamed sallallahu alayhi wa sallam Cheikh Ahmad Tidiane maam Xaaj di di tawassu ci ñoom ak seen maqadam ak seen taalibe di ñaan yàlla yal na yàlla tere lislaam ak jullit yi yal na yàlla teral lislaam ak julli ñi yal na yàlla teral lislaam ak julli ñi yal na yàlla dimbale waa Hamas yal na yàlla dimbale waa Hamas yal na yàlla dimbale waa Hamas yàlla dimbale xarakatu fat yal na yàlla dimbale jihaadil islaami ñoom ñëpp yal na yàlla dimbale Yaxya Sunwaar yal na yàlla dimbale Yaxya Sunwaar yal na yàlla dimbale yal na yàlla dimbale Xasan Nasrallah amin al am li xisbillah yal na ko yàlla dimbale yàlla yàlla dimbale waa Yemen waa Houthi yal na leen yàlla dimbale yal na yàlla dimbale waa Iran yal na yàlla dimbale yal na leen yàlla jàppale yal na yàlla dimbale julli yi nga xam ne ñi ngi nelaw julli yi nga xam ne ñi ngi nelaw maanaam arab yi nga xam ne ñoom ñu ngi newoon maanaam ci wax kese kese kese ci lañ toll yàlla leen leen yàlla dëpp nga xam ne ñoom ci gi problème bi guerre bi neeraw rek la ñu nekkee maanaam wax rek ci lañ am parce que dañoo ragal yàlla leen leen yàlla dëpp yàlla mën na loolu yàlla na ko def yàlla na yàlla may jàmm àddina ak ba àlaaxira yàlla na yàlla musal bépp musiba ak bépp balaa yàlla na yàlla musal bépp xay ak balaa xay wa yàlla na yàlla boole sopp yàlla gisoo ak yàlla nga xam ne lépp lu soxla yàlla defal leen loola yàlla saxal jàmm ci Sénégal yàlla yàlla jàmm Sénégal yàlla yàlla saxal jàmm Sénégal yàlla yàlla saxal jàmm Sénégal caaro gee soo fi jógee di nuyu Rufisque gii wala nga jógee caaro gee di dem géej waaye gee tali yu yooyu ya nekk noona mën naa tax booy ñibbi signal bu bon wala faar bu bon mën nga koo bañ a dese wala bul gendre gendarme arrêté wala police mu yaakaar ne sa signal bi dafa bon mu bugg laa tardel foofu noonu déedéet tali yi ñoo baaxut te nawet bu ñëw tey duñ baax kon nag problème bi du responsabilité police bi de police bi bàyyi la nga jàll mais problème bi du responsabilité am bi may ñëw man bi may ñëw sama signal baax na sama faar baax na police bi ma tardeel ma sama ñëw boobu ma sama ñëw xamoon naa ko yow lii man ma ci yoon bi la ma dalee waaw yow li ngay def dañ la koo diggal waaw mais ki la ko digal xamul la xew waaw parce que télé yi dañoo baaxul monsieur le ministre monsieur le ministre monsieur yi ñoo baaxul tele yi la war a yokku tëli yi ci boppam dañ leen war a yokk tëli Sénégal yi bu camion gaare ba am fu mu paan affaire demee noonu tëli dafay am problème tëli ci bopp lañu war a yokk oto bu dem jàll gendarme mu gis ko waxuloo dara affaire demee noonu gendarme mooy garde responsabilité bi waaw dëgg la mais problème bi tëli yi dafa dafa baaxul ndakaaru gi tëli yu bëri dara baaxu fi démb laa gi jógee géej waay yi démb laa mais nit gis fi ma jaar yëpp tër yu bëri dara baaxu ci sama signal mën na cee bon sama faar mën na cee bon kon nag monsieur le ministre Sonko Cheikh Abdourahim Niass mu bàyyee mu ne ndakaaru tër yii am na ci bëri yoo xam ne dara baaxu ci moo tax signal yi mënut a baax signal yi mënut a baax faar yi mënut a baax mën na laa def yoon dama ne premier ministre Ousmane Sonko loolu la wax de Seydina Ousmane Sonko noonu la tudd di hmm? man maa ko dégg ci vidéo muy wax moo tax man tamit parce que li ma leer ba leer xam naa ne wax ji dana àgg moo tax xam naa ko oto laa amee comme ñeeb di dawal waaw moo tax may wax loolu tali yi baaxut tali yu bëri yi fi baaxut waaw moo tax nag oto bu jàll jub ak jubal lañ wax jub ak jubal lañ wax jub ak jubal dafa baax trop rafet trop ñëpp am lañ bëgg mais cent pour cent mënta nekk cent pour cent mënta nekk yàlla sa bindee adduna adduna bi noonu wa man a law sha allahu la hada naas jamian bu yéen ne ko yàlla ñëpp jub te jub moo gën di hmm, mais jub cent pour cent mënta nekk de déedéet jub cent pour cent mënta nekk de jub cent pour cent mënta nekk baax na mais cent pour cent mënta li tax cent pour cent mënta nekk moo tax ñu jox na istighfar moo tax ñu salaatu ala nabi laa ilaaha illa parce que ñu neen dañuy tooñante dañuy tooñ yàlla moo tax ñu tax ñu tax salaatu fatiha bii ñëppay tooñ dañuy tooñ ñu ne di tooñ suñu bopp do tooñ suñu bopp moo tax ñu dox laa ilaaha illa moo tax salaatu ala nabi moo tax dox ñu istighfar parce que yàlla moo gën a xam nañu koy tooñ waaw kon nag di ñaan yàlla yàlla dimbale leen seen liggéey te jàppale leen di wax ne taalibe tijaan taalibe tijaan bu jël wirdu tijaan wirdu tijaan ku ko jël hmm, doo ziyaara wala yóbbu tijaan moo xam dund moo xam bu dee